ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbàkke xalif Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim sëriñ Cheikh Mbàkke xalif sëriñ Mbàkke Madina sëriñ Abdourahmane Mbàkke xalif sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma sëriñ Moustapha Mbàkke Mohamed sëriñ Abo Mbàkke xalif Darou Salam sëriñ Cheikh Fall Touba Sam jabootug maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina sëriñ Tako Fall xalif sëriñ Mayoro Fall ak rakkam jëwriñam sëriñ Ahmadou Fall Mayoro ak sëriñ Fallu Fall Mayoro mbooleem njabootu sëriñ ma yoro faal góor ak jigéen mag ak ndaw di leen yëgal bisub siyaar jokk bokk ak ñaanal mag ña te baaxoo ko at mu jot sëriñ abdoulahi fall moussa rahmatullahi alayhi tàmbali woon ko samedi fukki fan ak juróom-ñeent ci février 2022 ca Bijëm Mouride région Saint-Louis arrondissement raw commune de Fass Ngom daañu xëy jàng alquranul karim ba def ko addiyey sëriñ Touba Fall ñaanal te itam sëriñ abdoulahi fall moussa dokkoon jëwriñu sëriñ i leer 12 heures ñuy julli bernde 15 heures ca la ñuy def conférence bu mag ba soññent ci bokk akuk taalibe 17 heures njàngum xasida ma ci rajas bu ñu sëlmalee timis sant soññee ñaan yëfi mbooloo ma ñi ngi koy yëgal njabootu xaadimu rasuul njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha Karim sëriñ Ousmane Ngom xalif maam Rawaan Ngom El Ibrahima Diaw maire commune de Fass Ngom Baye Arona Wade ca Bijëm Murid njabootuk El Hadji Awa Gaye ca Goño njabootuk Maam Moussa ca Kayal ci njiitul sëriñ Seex Fall njabootug El Hadj Aliou ca Daara Mbos njabootug Mam Jógu Fall ca Bijëm Saloum njabootug El Hadj Jaañ ca Ndar njabootug sëriñ Njaga Fall ci njiitul sëriñ Dam Fall imaam Seex Moussa Fall di jëwriñu comité pilotage magal gi moo fi indi yëgle bi di bisub ziar bu ñu baaxoo ca Bijëm Murit di ko gis ko nag fas nañ ci yéenee teg xeeru daaray alxuraanul karim lépp lu waay mën a am ci ciment ak fer ak xeer mbaa ko joxee ñu defal la ko ca ñu ngi ciy tàllal loxo mbooleem jullit yi noo ngi ku teew ca bis ba suñ ko ngërëmul yàlla ak pajuk aajo